mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah dellusiwaat nañ ci sunu téere bi riyaadu saalihin di nettalil yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ay waxam ak fàttali buntub tey ñu war a tàmbalee ci àq yi nga xam ne moo war jigéen ci boroom këram bind beebu jàll mel ne na ñu ngi doon wax ci fonk gi nga xam ne moom lañ war a fonk jigéen ñi bindu tay bi kon dafa jëm ci àq yi nga xam ne jigéen ñi war nañ koo xam ne seen boroom kër yi am nañ ko ci ñoom sunu boroom subhaanahu wa day wax ni arrijaalu qawwaamuuna ala annisaa bima faddala allahu baadahum ala baadin wa bima anfaqu min amwaalihim sunu boroom subhaanahu wa dafa def góor ñi ñu doon ñoo xam ne moom la def ñu doon kilifa yi jigéen ñi kon jigéen na xam ne góor mooy kilifaam moom la sunu boroom sant mu yor ko moom la sunu borom sant mu digal ko moom la sunu borom sant mu sàmm ko kon loolu ki koy defal xamal ne kon mooy sa kilifa bi mu waxee loolu itam sunu borom xamle ci biir aaya bi itam soxna su baax nan lay mel ngir soxna yi gën a mën a xam nan la ñuy toppatoo seeni borom kër mu ne leen fa saalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lil xaybi bi ma xafidallah mu ne soxna yu baax yi daal mooy ñi nga xam ne dañuy taxaw temm ci jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa waaye di toppatoo itam seeni boroom kër di topp seen ndigali boroom kër waaye doon ñoo xam ne itam dañuy sàmm seen bopp bu fi seen boroom kër nekkul dañuy sàmm seen bopp sàmm itam seen alali boroom kër bu fi seen boroom kër nekkul lépp loo xam ne seen borom kër moom na moom na ko rek dañ koy sàmm kon aaya boobu moom la téere bi indi ci bunt boobu su ko defee ñu dugg ci xaddis yi jële nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na góor bu fekkente ne dafa woo soxnaam ci kaw lalam maanaam ngir bëgg a jote ak moom nee na te jigéen googee nanguwul nee na na xam ne sunu borom subhaanahu wa taala dina ko mere te it malaaka yi dañ koy fanaanee rëbb ba keroog muy xëy suba kon jigéen joo xam ne amul ngànt sa boroom kër woo la donte yow yittewoo ko waaye moom yittewoo na ko kon fexeel ba bul bañ àndal ak moom ca bëgg-bëggam boobee ngir nga mën a mucc ci merum yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ak rëbbum malaaka yi alayhimu salaam xaddis boobu muttafaqun alayhi la ba ci beneen riwaaya mu ne ida baatat almaratu xaajiran firaasa zawjiha laxnat laxnatahal malaikatu xata tusbiha maanaam jigéen bu fekkente ne dafa tong maanaam dafa tong lalu borom këram nanguwuta dem ci lalu borom këram nee na jigéen bu def loolu de na xam ne malaaka yi ñu ngi koy rëbb maanaam am ak problème sa boroom kër rek gedd néeg ba wala sax nga jëlub mbaaj lal ci suuf tëdd ci penang bi bàyyi sa boroom kër kese ci kaw lal bi nee na loolu bépp jigéen boo xam ne yaa ngi koy def xamal ne sunu boroom subhanahu wa taala de dana la mere te it malaaka yi ñoom it dañu lay fanaanee rëbb hmm. ba tey ci beneen riwaaya yonent bi sallallahu taala alayhi wa wax ne maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama loxo bii wala sama bakkan bii mu ngi ci loxoom amul benn góor boo xam ne dina woo soxnaam ci kaw lalam mu bañ lu dul ne buur bu màgg bi nekk ci kaw sunu boroom subhaanahu taxalaa lu dul ne dina dina dina dina mere soxna soosu ba keroog xolub boroom këram di seet daal ci soxna soosu kon bépp boroom kër boo xam ne yitte woo na soxnaam soxnaam bañ ba mer ca nee na mer moomee suñu borom daf cay ànd ak moom ba keroog xolu boroom këram di sedd ba keroog xolu borom këram di sedd kon loolu itam jigéen ñi war nañ koy wattandiku bu baax a baax a baax a baax hmm. ba tey jële nañ ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na dëganul ci jigéen muy woor te fekk borom këram mi ngi fi lu dul ne daf caa laaj ndigal buñ nee woor nag mooy kooru ngàtt nga maanaam woor yi ñuy woor bisu ngàtt nga bokkut ak ramadaan ramadaan moom yàgg sa borom kër yéen a ci yam yéen yéen ñaar ñëpp ko war a woor bu dee jigéen gi amul ngànt mooy ngànt yooyu di leen dal hmm. waaye kooru ngàtt nga yi boo ko bëggee woor laaj ci ndigal sa borom kër ba noppi bu la joxee ndigal nga door a woor naka noonu itam biir këram wala biir néegam lu dul ne da nga koo laaj ndigal bul jekki-jekki dugal geneen góor ci sa biir néegu boroom kër te sa borom kër joxula la ndigal hmm. ba tey jële nañ ci ibnu omar radiallahu taala anhuma mu jële ci yonente bi salallahu taala bi salallahu taala alayhi wa sallam nee na wa kullukum mas'ulun an raa'iyati yéen ñëpp maanaam kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te ku nekk ci yéen ëllëg danañ ko laaj la mu doon sàmm mu ne buur ab sàmm la ci njabootam ci waa dëkkam ci am réewam muy président yi naka noonu góor itam ab sàmm la ci ñooñ këram góor ab sàmm la ci ñooñ këram mooy ay soxnaam ak i doomam ak képp ko xam ne rek yëlif na ko ci biir këram naka noonu itam jigéen ab sàmm la moom ci biir kër boroom këram ab sàmm la fa moom it danañ ko laaj moom it ndax àq yam waroon ya ko waroon ca biir kër boroom këram ma ngi ko doon matal ëllëg danañ ko ko laaj moom it kon kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te it ëllëgee danañ ko laaj la mu doon sàmm képp koo xam ne itam yilifoo kenn itam xamal ne am na la suñ borom subhaanahu wa taala jox muy ay cër yoo xam ne moom it ëllëg danañ la ko laaj moom ko ko doon sàmmee kon kenn ku nekk na bàyyi xel loolu xam ne ku nekk ci ñun rek ab sàmm la moo xam ku yilif nit la wala ku yiliful kenn ëllëg danañ la laaj lañ la doon sàmmloo ndax sàmm nga ko wala déet xadis boobu muttafaqun alayhi la hmm. ba tey jële nañ ci ali ku ñëw ali ibnu talq mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bépp góor boo xam ne woona boroom këram ci aajoom boo wala boog woona soxnaam ci aajoom ngeen jéggal ma euh, mu bañ kooku suñ borom da koy rëbbu waaye nee na bépp góor boo xam ne euh, woo na borom boo woo na soxnaam ci kaw ci maanaam ci aajoom ngir bëgg a moom nee na soxna sa na gaaw dem dikkal ko donte sax da koo fekkoon ci ab waañ muy defar mburu wala ak lu mën a def donte da koo fekk ci waañ muy préparer mburu wala mu doon defar añ wala sax mu doon defar reer moom comme yëg na ne borom këram am na aajo ci moom rek nee na na bàyyi la muy def rek dem bu ca noppee door a dellu ca liggéeyam ida daxar rajulu zawjatahu li xaajatihi faltatiihi wa in kaanat ala tanawur mi ngo ba tey jële nañ ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha bu fekkonte ne dinaa digal kenn muy sujjootal kenn kon de jigéen lay digal muy sujjootal boroom këram ngir àq yi nga xam ne rek moo moom la amee hmm. ba tey jële nañ ci ummu salama radiallahu taala anhu mu ne yonte bi salallahu taala ayuma mraatin maatat wa zawjuha anha raad daxalatil janna bépp jigéen boo xam ne faatu na te ba muy faatu yóbbaale na ngërëmal boroom këram nee na sunu borom subhaanahu wa dina ko tàbbal àjjana waaye foofu nag boroom xam-xam yi léegi dañ koy teqale ndax dañ ne léegi lu ci ëpp ci borom kër yi bàyyeetuñ xel seen soxna euh, ndax mi ngi jëfe ndigali yàlla yi wala déet looloo waral am ku ñëwoon ci Sëriñ Tuubaa ne ko sama soxna dafa génn àdduna waaye di gërëm naa ko Sëriñ Tuubaa ne ko kan moo la gërëm yow ndax borom kër yi léegi daanaka toppatootuñ soxna si soxna si ndax mi ngi topp ndigali yàlla wala déet ñoom daal seen mbirum bopp rek moo leen yitteel ndax mi ngi toog togg bu baax mi ngi fóot fóot bu baax mi ngi bale bale bu baax yu demee noonu waaye diggante soxna si ak digganteem ak boroomam moom daanaka lu ci bari lijjantee duñ ko loolu nag mooy li ci xaw a doy waar. Hmm. ba tey jëlee nañ ci Muaas ibnu Jabal radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na yellul ci jigéen muy lor boroom këram. bépp jigéen boo xam ne lor na boroom këram fii ci àdduna bu ko yëgee ak bu ko yëgul nee na dina am ay jigéen yu rafet te mooy uurul ay niya danan wax soxna si nga xam ne mooy lor boroom këram naan ko laa tuzihi qaatalakillah yellul di ngay lor sa boroom kër bii yàlla na la yàlla rey rek xanaa xamoo ne moom mii gan rek la koo xam ne dafa ñëw ci yow yàgg-yàgg day dafay jóge bàyyi la fi léegi mu tàqalikook yow ñëw ci ñun kon bépp góor boo xam ne suñ borom boole na ko ci waa àjjana suñ borom nattoo ko soxna soo xam ne dafa koy fitnaal di ko lor ah, jigéen ña nga xam ne ñoo nekk àjjana muy xuurul ayniya buñ xëyee loolu la ñuy wax soxna soosu nga xam ne mooy lor boroom këram ak di ko ñaanal suñu borom faat ko moom soxna soosu kon loolu itam soxna si war na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax di bañ di tàngal xolu boroom këram ah, di di di topp di daw itam ay tereem hmm. jële nañ ci usaama ibnu sayd radiallahu taala anhu mu ne yenent bi salallahu taala alayhi wa sallam nee na bàyyiwuma sama ginnaaw fitna ju gën a mën a lor góor ñi ci jigéen ñi maanaam fitna ji ma bàyyi sama ginnaaw muy fitna ji gën a mën a sonal góor gën a mën a lor góor nee na mooy jigéen ñi kon nag soxna yi kon war nañoo gën a góorgóorlu baax a baax a baax kon su ko defee kon bunt boobu foofu la yam mu jëmoon ci àq yi nga xam ne moom la boroom kër am ci soxnaam soxna si kon war koo xam bu baax a baax a baax ngir matale àq yooyee ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen bunt bi ci topp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah